salaamaaleykum sama mbokk internet salaamaaleykum waa àdduna wa senegal salamal ko ñi nga xamne ne ñoo safoo di seen chaîne bi nga xamne moy yondem TV te yondem TV nak dafa doxoon fi nga xamne nak moy Malika ñu nan ko montagne suufu montagne gaay gaay yu bari di ko tuddee mbëbës ñu fekk fi grand champion bo xamne ne yaakaar naa yaakaar kenn dootu ko présenté si làmb dañ koy bàyyi mu ñuyo ñu dogo wëyel waxtaan bi Ama. waaw ginaaw buñu ñu sant jul ci yondem tv ñi ngi sant suñu ñaari wajur waaw di sant fiñu dëkk ni muy Malika Mbëbës comme fiñu fekk ni waaw waaw di leen sant bu baax a baax yéen tamit di leen sant si déplacement ak dérangement bi waaw leen nuyu bu baax waaw. waa yi comme ni mu waxee nuyoo dañ koy laaj léegi première keso bi ñu koy njëkk laaj mooy laaj na Ama coow li dafa bëri Ama est que jaar na mbapat. waaw waaw ñun moom yàlla def na moom am nañ chance boobu jaar nañ ci mbapat bu dugg ci arène. Hmm. waaw ñun moom mbapat nañ bu baax. bëgg na xam fan fan nga mbapat. fuñ mbapat bëri na. Hmm. bëri na de ñun dem àll ba sax di mbapat. waaw. ama mën na xam ñan la daan ci mbapat. ngay daan ci mbapat moom bëri na ndax da ngay dugg tournoi boo xam ne day am ay sept personnes huit personnes. Hmm. waaw ñoo ay mbër yoo xam ne tey ñu ngi bëri si arène bi xamee na la ràññee na la ay ñoo xam ne tey ñii bu ñu gisee xam ne ama daan na la si mbapat. waaw loolu day am. mais doo ko doo ko dee fàttaliku sax. Hmm. ndax da ngay gis ko xam da ngay bëreeg moom mu ñëw bëree quelques combats doo doo doo ngay fàttali ne sax bëri nañ ñoom ñaar yéen ñaar waaw. non waaye ma nga wër nga parce que yow jamono bi ñu si hmm. na mbir yoo xam ne wóor na ne xam ne ñii mën daan naa leen waaw mais loolu dafa yàgg. Ah, dafa yàgg waaw mais mu gën a war a war a ñett. mu xool non kii daal bëri nañ Pambaay bëri nañ. Pambaay numéro 2. waaw ak kan sax di geey way nañ gambi gambi ñaan ku daan momo mo daan katapi mo daan katapi waaw ak kan? ak ki tourna ki ki ki bi ñu tedd sax double s bi moy ki 72 heures waaw bare na fa ak gaay fofu nonu gaay bi fa waaw fo lam jo nu mujjé mbako do waaw bobu tamit demi final la ñak waaw mais man dama gis man ama bi ñi xam bi ñi xam ama ama nga xamé won da doon fetch ñu jékki-jékki gis Ama dugg si làmb lan moo la modifié ba nga ko ba nga dugg si làmb bi te ñun fecc la la nga xamee woon. waaw fii moom xam nga rek boo nekkee xale moom si lu nekk di nga ci jaar. waaw mais xam nga lu ci mënti am rek nit ki moom na bañ a def loo xam ne ku la gis du la naw rek. waaw loolu la quoi mais ñun moom lu bokk sa destin rek da nga ciy jaar foos loolu moom waaw. kan moo la kan moo la intégré ba nga gis koo nag man eh, foog mu dugg si làmb kan la. wa lam mom mun naa ne xam nga ñun mom don la ci ñun quoi da man kuñ ma tuddé ni direct rek mo non gembay mohammed Ali ñom ñep Tyson ñoom ñëpp moo leen don gemb te sama turandoo la. turandoo kon ngemb bi da nga ko fa fek wa dama ko fek ci geur gi. si kër gi ànd ak moom waaw. Mm. waaw bo gisee ma laaj la question moom parce que li dafa coow li dafa beure won parce que ama gay jégué est-ce xam na yow da nga bokku ci mbeur yi nga xamné tay tey ñoo dàq fekk si làmb ji xam nga loolu. waaw loolu moom dafa yàgg ñun moom dégg moom dañ ko yàgg a def. waaw te moytuñ moom mbër bu dégg ko waaw moytuñ mbër bu dégg waaw waaw. dina day dina mën a bëri trop trop. dina mhm, waaw léegi ñu bëgg a ñu ñu ñu bëgg a xam Ama. si benn moment la commencé dugg si arène ana ban. waaw man maa ngi dugg deux mille dix huit deux mille dix neuf. 2018 fin 2018. laa bëri premier combat waaw. laa bëri premier combat. waaw. boobu Ama premier combat bi nga bëree ñu njëkk laa jox avance premier combat arène. Mm-hmm. noo ko dundee guddi googu. waaw dundee wu ma ko dara. Hmm. ah dundee wu ma ko dara de. moo hmm. jàpp ne affaire góor la rek. no parce que nga jóge si mbapat dem dal si arène. waaw na yàgg ñaari version yoo xam ne bokkul mais yàgg nañ ko waaj nag boobu yàgg nañ ko waaj ba ñuy bëre mbapat yëpp ñu ngi waaj arène. waaw loolu tax sono lu ñu woon wax. Mhm. boobu moo nekk 2018. 2018 waaw sa premier combat ñu jox la kat. kii lañ ma joxoon mbëru parcelle bi waaye soo si ko la tudd xaw ma ko turam fàtte naa sax. ba la écurie parcelle la nekkoon. boobu Moussa Dioum war a war a Rock Énergie. est-ce que nekkul côté Rock Énergie bi noonu. waaw ah, parce que euh, parcelle moom ñett écurie fa nekkoon doo dooraa dafa newoon ak parcelle mbooloo ak ak Rock Énergie. waaw parcelle mbooloo. Ah, yaakaar naa fa la nekkoon waaw dafa yàgg quoi waaw. waaw ah, écurie boobu la nekkoon quoi. waaw boobu moo nekkul 2018 bi noonu. waaw ñu gis ne Ama boobu boobu moment boobu ban écurie nga nekkoon. boobu maa ngi nekkoon écurie Kër Massar. Kër Massar mbooloo. waaw fa laa nekkoon waaw nekkoon quoi. waaw. Kër Massar mbooloo kan moo la fa jël yóbbu la fa. Kër Massar Mbolo gars yi ñoo ma fa yóbbu rek. xam nga ñun fii ak foofu sorewul quoi. waaw moo doon man parce que dafa jamono yee paas dafa am benn waayoo dama ko tàllaloon micro maa ko koy ñuy instant tey muy Pape Demba mu moom moo la jël yóbbu la écurie waaw waaw moom toppoon na ci wax ñëwal boobu Malika laa nekkoon mu topp ma naan ma ñëwal Kër Massar di wax a affaire yi ma ne ko waaw amul problème. boobu yaa ngi woon Malika Mbolo. waaw fa laa nekkoon waaw. waaw ñu gis ne léegi jóge nga Kër Massar mbooloo dégg nañ ñu bëri ñu ne tey yaa ngi jaxaay lan moo tax nga jóge Kër Massar Mbollo dem jaxaay lu xew. waaw affaire yi noonu la affaire yi moom xam nga dangay xool fi nga gisee sa bopp rek. waaw ku nekk ak fi la doy rek. man damay ñew si écrit man lay ki wé écrit suma duggé ci si écrit damay ñew xol lu fay sama arrangement féké mu ngi fa ma tok fa sama arrangement bu fa nekkul ma bàyyi leen fa dem fenen non écrit keur Massar néna néna babu lu ko fa gëri tax joggé bu ko nexé day entre day ñew tay entraînement bu ko nexé mu tok semaine bo xamné du ñew entraînement lo est-ce deug la non lolu ay wax la rek mom écrit keur Massar lu mu fa gëna jëlé da ngay am combat do am ko contagal do am ko contagal da ngay ñew entraînement say moroom rakk nga fay fekk ñooñ muñ la may contact mun ñu la may contact. looloo tax mais man jamono bi may ñëw écrire Kër Massar Mbooloo boobu maa ngi fa fekkoon am na say morom yoo xam ne ay ñoom kii euh, te bu nekk moo suufu montagne sa xarit boobu fekkoon naa daal maa fa doon fekk ay luur yoo xam ne te yow combat yi nga bëri yëpp Kër Massar Mbooloo nga ko bëree. Mhm. kon dèjà yow nga si yàlla la si may ay victoire. ñàkkoo woon ay luur yoo xam ne yaa ngi contact ak ñoom. waaw moom laa lay wax mel na la loolu début bi. Hmm. moom fay doog a dem. Hmm. gars yi ñu ngi doon ñëw normal. Hmm. luur yi bët waaw bu ma fay mujj jugee daal lu ma fa jëlee daal. waaw boobu ñëw naa ñaari combat yoo xam ne damay bëgg ku ma contact sax du ma ko am damay mujj di génn. di tase gars yi si mbedd bi di contact ñoom. waa mooy sa ñaari combat yi nga teg la defee defeeti. waaw. boobu la boobu la woon waaw. léegi gars yi waxtaan a yow ne la léegi foog nga changer yow nga choisir jaxaay. waaw foofu xam nga rek foofu moom ñun ñun moom kuy liggéey rek lañ xam. Hmm. waaw te foofu noonu vraiment baara king amuñu caaxaan daal. Hmm. amuñu caaxaan foofu luur yoo xam ne mën na la sonal si contact. waaw waaw ñoom Boy Sey deux hmm. xam nga ñoom Maama Lamine ñu ngi fa booy ñoom caat. waaw gaa yëpp ñu ngi fa. xam nga ñoom Orton. ñoom ñëpp ngi foofu noonu. des fois gars yi dañuy ñëw sax ñoom saa bokkal. ñoom ñëpp dañuy ñëw may ñu contact. waaw waaw waaw. Hmm. léegi day delluwaat tuuti rek mooy li ma la waxoon si 2018 bi noonu premier combat bi nga jóge si nga am sa deuxième combat koo am. deuxième combat maa ngi amoon amoon Thier. nu mu mujjee combat mu daan ma mu daan la nga am benn victoire benn défaite. waaw sa troisième combat. troisième combat maa ngi am Mbaye Khada laa am. Mbaye Khada ma daan ko. nga daan ko quatrième combat. ma am Dame Junior ma daan ko. ma daan ko. cinquième combat. ma am Njool Jamono ma daan ko. nga tegale quatre trois victoire benn defe benn kii. waaw boobu maa ngi am benn defet. benn defet waaw. sixième combat bi. sixième combat bi laa tase kenn laa taseel sax affaire dafa yàgg nag de. waaw mais dafa yàgg mais war ngaa mën a xam parce que ama ba nga ñëw ba dugg si sixième combat ama tegleel nga fi ñaar yoon defet waaw comme comme kan non bu la kii di daan ca caatu bu ca caatu waalo. waaw daanoon nga fi avant caatu waalo am na keneen ku ne njëkkoon daan. kii gaaroo gaar la ñoom ñaar ñoo ma nga teg nga si nga teg ñaari defet ñu jox la Modou Fëgg la. waaw Modou Fëgg la ñu demoon seetu ko mu bëri woon coow. ma ama daf ma ragal ama daf ma ragal avant Modou Fëgg la di la laaj sax booy Bib Diop moo la doon laaj amul fu mu taxul wax lan moo tax nga choisir Modou Fëgg la bàyyi fi Bib Diop te Bib Diop nekk mbër boo xam jamono bi mu ngi si sept combats victoire. man am na mbër yoo xam ne duma ma leen laaj boo ñëwee duma ko proposé sax duma ma wax ak yow. mais lan moo tax bi Diop teg la sept combats sept victoire. man douze la am. waaw douze combats man booy yi nii déggoo li ma la wax man booy yi nii adversaire du ma du ma daan. Hmm. ak ñu ma bëreel amuñu seen fit bëreek ñoom. Hmm. yaa ngi dégg dañuy toog nag gars yi leen dee naan laajal. yaa ngi dégg ba làmb defee une semaine damaa feebar damaa feebar ba ba ba une semaine laa arrêté entraînement yi. yaa ngi dégg mais ñu bëri ba ñu ñëwee noonu ñu yaakaaroon làmb lay demee sax demeewu ko. Hmm. Caatu Waalo jël na sama tànk fanaan na ci xaw na cee dee. waaw. waaw mais mais mais moo tax ma la moo tax ma la Moodu fëgg tey boo doon xool si jamono boobu mu Big Diop Big Diop moo ko gënoon baax palmarès. non non fa dem jël Modou Feugeule soit est-ce que nekkul Modou Feugeule moo gënoon nooy Big Diop. Modou Feugeule ba ma koy daan musul daanu di da booy ës yëpp la daan c'est que man am na nooy tey jii man maanaam hmm. mbër am na nooy comporté woo sax man du ma bëgg bëreeg yow. Hmm. man boobu dégg naa ci ay vocal ak ay ku ne ay ñoo xam ne ay ay xam nga ay journaliste yi sax di ko pelee del di wax yooyu noonu yooyu noonu baaxul. Hmm. nga àdduna fii dañuy yéeneente jàmm ñun ñëpp. nit bu defee dara danga koy nangul ne dafa def dara. Hmm. mais léegi gars yi dañuy da ngay def dara ah def lu baax lépp. Mm, ñu la ko waxal. Mm-hmm. dañuy bàyyi ba nga dee ñu taxaw naan pourtant doon na fi def lu baax nii. Mm-hmm. nit daf buy dund nii dafa laaj nga koy waxal yu muy def. Mm-hmm. seedeel ko yu baax yoo xam ne xam nga nit ñi dañ koy dañ koy kii quoi mais tey ji nit du nekk xale bu ndaw. man ñu si làmb ji ñu ma ci mag man bëriwul xale bu ndaw boobu ba tey nekk di ñafe xam nga nekkul ci lu bon nekkul ci lu ñaaw. ñëw di ñafe dugg ci làmb ji. tay la bakkenam di dóorante di kii kooku bu fi defee dara danga koy nangul ne kii dafa def dara. mais tey da ngay nekk xoolal douze combats man bëri na ñoo xam ne man xam naa ne tey ji bu ñu sampoon ci arène bi booy mun ñu leen daan kooku danga koy nangul keroog Babacar tamit maa ngi koy sant ci loolu keroog direct TFM la taxaw waxaat loolu gars yeewaat leen ci loolu noonu. waaw di leen wax ne ñun moom wax dëgg yàlla moom lu ñu war a am dañ koy am lu ñu waruta am duñ ko am. ku ñu war a daan def ñuy daan ku ñu waruta daan def ñuy daan. Hmm. yaa ngi dégg mais lii làmb la rek man damay ñëpp laay lancer appel ñëpp laay lancer appel ñun ay ndaw lañ dañuy góorgóorlu. ku ñu mënul wax lu ñuy jëmale kanam ngir yàlla seetaan ñu moo tax moo gën nga ñuy ñëw di ñu jéem a décourager loo di ñu wax ay yenn mbër yoo xam ne ay cinq combats ay deux combats lañ fi am. waaw loolu moom wax dëgg yàlla nañ ñu si jàppale bu baax. waaw mais xam nga xam nga làmb day toll foo xam ne maa boo xam ne mooy comme li gars yi wax. Mm. soit gars yi di naan grand compte du bëri. tey mais teewul. da ko jël ñëw bëri moom làmb moo tolloo parce que il faut tamit ngeen ko yulente quoi grand contre petit da am fii laal ne parce que ndax làmb moo dem di nga mbër boo xam ne cinq combats lay bëri tey yaa ngi ko dégg mm-hmm. sans départ rek si si yoonu nu mu leen boolee. waa man man lu may wax noonu loolu mooy loolu mooy wiri wiri jaay ndaare man noonu laa ko tuddee man wiiri wiiri man wiiri wiiri wiiri wiiri jaari ndaare man ñaari combat yi ma jógee ñi yëpp damaa wàcc bu baax waaw kon caatu caatu ki ki ki caatu gétt ko caatu piyool waaw baa juyoo xam ma six combat amoon Modou Feugueleu cinq combat la amoon man dama wàcc dama wàcc sama combat lu ma xaw a yéexal nii sax boo yu may gestu di jël damay jël ni sa gaay ne ma waroo ko jël dangaa gestu. Hmm. waaw mais damay jàpp ne làmb la rek. Hmm. waaw loolu la ko mais ñëpp ñu ngi doon xaar yaa caadu ba nga ko daanee di nga samp diggante euh, ca kii nu mu tudd euh, nu mu tudd ak euh, Pokola ñëpp xalaatu na ne day ñëw samp ndëndam foofu lan moo tax gis ñu nga samp. waaw. loolu moom xam nga mënoon naa nekk mënoon naa bañ a nekk ndax foofu mënuma faa samp. tey jii ndax du ma bëre pokola. Mm. jamono du bëre pokola. pokola sama waay sama lépp la waaw. turandoo turandoo da nga tuddee sa bopp Ama rek mais bi ñaar kay yaa ngi nekk Malika moom mu nekk bu Pikine. dama ko tuddee sama bopp mais pokola moom ma gën a bëgg sax ko Ama Baldé. Mm-hmm. pokola bu ma ñëwee seen kër. geste yu muy def damay xam ne kii daf ma bëgg. saa du toog plateau te bëriwul. toog bëri bëriwul lu muy toog di wax. te wax waxul ci man. waaw kon kooku mënu ma faa samp ndënd. gàkku moom bu ñëwee ñu bëre. jaww ñëw mais gars yi ma gis gars yi si commentaire bi nee na Ama ak ak bébé bébé bébé Molo euh, bébé Molo yéen ñaar. kan Molo booy bi daan Jackson. Ah, Petit Lo waaw. loolu yëpp làmb la. Ah. mais am na làmb yoo xam ne. Ah. instant bi bu bëreegu ko. yow yow soxla goo ko. waaw soxlaa gu ma ko quoi bu jotee rek dinañ bëre. kon Ama fu mu tëg bëtam. waaw gars yi nañ ñëw rek. yéen ga Issa Pouye suñu grand la. Issa Pouye may la sens. waaw nañu may sens. mais lan moo tax yéen bëri yu bëri dama si en général ñu bëri xaaj bi yëpp keroog même sax ba may déglu Pokola tamit Pape Sarr loolu wax Issa Pouye na ñëw ñu bëri. Alboury Issa Pouye ñëw lu tax yéen ñoom ngeen taabu Issa non du question taamu sax dafa am ñoo grand yoo xam ne. ay jàmbaar lañ dañ fee def dara. dañ fee def dara. te tey jii ñoom ñu bëree ñu ñàkk bëree ñoom moom lañ yemale. kon ñun ñu si toll nii di bëree nii dañ leen di ñaan sans ñoom ñu ubbil ñu bunt yi. suñ leen daanee ñu dem. bu dul isaapu ak bu dul isaapu ñu ngi fi. non zos yéen boobu léegi ñi ngeen wax yëpp mooy ñi nga xam ne presque làmb bàyyi. ñoom rek ngeen laaj. booy yi xam ne ñoo tàng si làmb ji ba léegi déggu leen ngeen laaj leen. kii dégg mu naan nañ ñu daam nga jël ko. barke suñu maam ak Arafas. daam na ñëw ñu bëre. Arafas. daam seen na ñëw ñu bëre si boppam. waaw daam seen bu la joxee avance na wala laaj yow bu ma woowoon léegi ma dem jëli ko. Hmm. wallaahi. yow daal yow amul daam seen moom déggoo li ma la wax. Hmm. daam ñaanu ma ko sens na ñëw ñu bëre. dan sen ni mu dan dano len de. ñal la dan dan sen seen xool ponkal mu dan de kan la dan dan sen dan na fi ben ben si tonay rek tonay ñaar ñaar ñaar na fi beure beure na fa ay ñoom Papa Sow ñu ko dégg bëre ñoom. ah Issa Pouye bëre fa ak ñoom Balla gay dan len waaw. waaw kon man lool la bëgg rek. waaw waaw. man tonay mo wa dëgg yalla mom solo non non du ma bëre ak taw do beure mom waaw. bëgg naa combat nag mais pas ay ñoo xam ne dañoo jeexal ak ay mag yenn mag yi nii. te doon est-ce que ko gën a moo gën a saf Issa Pouye bi nga bëgg a taamu. ah mais man Issa Pouye laa gis de. ah Issa Pouye la nga xamante daanaanu mbër la de. grand laa moom moo demee nii rek mais Issa Pouye champion la de. grand Tidiane Faye. Hmm. tonnerre bi ñu. Tidiane Faye. Hmm. na ñëw may ñu sens kooku moom dañ koy ñaan sens. Hmm. waaw. moom moom def na fi loo xam ne ñu ko fi def bariwul. mais combat bi nga fi jógee ba léegi promoteur yi si ban mbër la la choisir moom la la bëgg a jox. promoteur yi moom chaque jour dañuy woote. mais si yéen mbër na lay imposer. mais xam nga tey ñu imposer la mbër te avance ñëwagul. waaw mais mënoo mënoo koo cee sori quoi. yow mbër yooyu ñu lay imposer yow si boppam tey bu avance bi ñëw da ngay def da ngay jël bëre ak ñoom. waaw bu baax. kon ñooñu su ñu lay tànn choix bu baax na. wa baax na kañ ndax ah ndax beure moy sa métier gañ ñu ne lamb gi ni hmm. wa bu ngeen xawé tolloo ben palmarès bi ni rek da ngay beure ak mom da ngay beure ak mom quoi. waaw. Hmm. <laughs> loolu la quoi. léegi ñu gis ne Ama sa combat bi nga mujjé joggé est-ce que autorité fi ñu ngi la doon jappalé ci combat bi. ñun nak loloy suñu problème. Moustapha Meng dal non non Talla Gadiaga. Hmm. ak maire Dieynaba Ndiaye. ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax ñaari ñooñu. ñoom da lay jàppale bu baax. waaw ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax. billaahi di sant ñëpp nag mais ñaar ñooñu damaa gis saay boo leen fëggee rek di leen def effort. surtout maa mère Dieng ma Ndiaye. non mère boobu moom li may gis ngeen koy tudd di ko yéen waa Kër Massa dafa bëri na trop yéen koy da leen di jàppale leen di jàppale mais yow mère bu toll fii moom kese mu jàppale la ak autorité yi ñu bëri fii gars yi war na leen mën a jàppale champion bu doy na ama. ah ñu de loolay problème bi du la jàppale. sama turandoo moom mu ngi si jàmm rek. waaw di ko encouragé tamit. <laughs> di ko encouragé quoi si lu mu jóge noonu. waaw naqarañ trop. waaw ah, yàlla noonu la ko bëggee quoi. waaw ñun ñëpp gis nañ. Hmm. waaw. ñu bëgg Ama ñu pour émission bi di waaye tàggu rek Ama rêve si làmb lan la foo teg sa bët. man sama rêve si làmb mooy. Hmm. man xëccoo ma roi des ma dara. Ah, man. naa gis sama bopp rek ci làmb ji. yow daal làmb ji maanaam business nga ko def quoi xool yu too ah bu dul business utoo xaalis boo utul xaalis looy def. Ah, kon booy ko ci tàllal micro mu ne damaa bëgg doon roi des man de moom. yow da nga yaakaar kii daan sa turono roi bi da mu yàgg si moom. non nekkul loolu sax. Hmm. man Modou Lo keroog lu mu bëre amaanoon bu ñëwoon ma daan ko de. <laughs> barki yàlla su ma bëree woon ak moom daan ko jour boobu. jour boobu noonu lu mu fa indi laa la wax su ma bëree moom moom daan ko. mooy yow. <laughs> mooy loolu. Ama dafa feebar. Ama dafa feebar làmb ji da kaa forcé bëre ko dafa feebar. voilà. mais bu wëroon nag mënatu ko loolu leer na. ku xool Ama jour boobu noonu dangay xam ne Ama bu doon ñëw ñëwul. ku ko xool xam xam xam ko. Hmm. waaw làmb ji tamit xam nga. sport la ko waa sport la ñu ñëpp ñoo ko bokk affaire de jeunesse la rek tey jii da nga ciy nekk say as dem nga bàyyi ko fi dem xool leneen kon am na yu ñaaw yoo xam ne image yoo xam ne man gis naa ko mais dafa ñaaw am na yoo xam ne warul daal. kon yéen ñaaw yu demee nan. gis nga bu dul dara. Ama Baldé papaam. dafa yàgg représenté. pikin dafa yàgg représenté làmb ah. monument la ci làmb kon tey jii buy bëree. Hmm. ah moom bu fi nekkul. Hmm. amaa Baldé si boppam. gars yi ñoo ko war a gën a mën a fonk sa téye ko comme papam nu mu ko téye woon. Hmm. kon tey làmb ji ku nekk gis na làmb ji nu mu ñaawee làmb ji dafa ñaaw Ama Baldé ñoom am na ñoo xam ne lu seen yoon ci làmb ji ñoom. waaw lan mooy seen yoon. Ama Baldé mbër la. ku nekk ku nekk da ngay jaay sa morom rek pour pour pour napp ko pour mën a daan combat bi rek affaire bi loolu rek la mais làmb ñi nga seetla gis ne dara am benn problème fa gars yi teg nañ ko si yoon bëri nañ ki boo na ko. ah yow loolu nga gis yow Ama Baldé bu muy bëree sax bu muy bu muy leetoo ci làmb ji sax. ah am na yu nekk si boppam yoo xam ne fàtte na sax làmb ji. taayeen ah, moo nekk si boppam. ah yow yow gis ngeen yow ñoo topp mulo yow nga ba si jour bi. mais mais ñooñuy ñooñu di ay bagages di ko sànneeg. di xëpp ak yooyu ah, dafa naan yow man yow yow wax. waa moo jël baga ko xamul la la mais am na droit jël doolu war ko bagage bi. déedéet dañ ko tuddee drapeau moom yoonam. nekkul waa ji bu galaaj bu ko galaaj. moom xam na ne galaaj bu ñu ko sànni nekkul pour moom. moom la déedéet amoon na xam la bu ñu naxantee waaw mais mais dafa rek ah ma dégg fi. Tapha Gueye Tapha Gueye suñu père nga mais sax yoon nekkul ci làmb jooju. waaw bu ñu sànnee gàllaaj nekkul yow lañ ko sànni yow dañu la tuddee drapeau. yow benn yow fu ñu la tuddee drapeau yow fi nga taxaw rek waroo fa taxaw ku ñuy tuddee drapeau si digg bi la war a taxaw sekk ñaari mbëri mais si wetu Modou nga taxaw. ba ñuy sànni bagage bu mu lay dal ba nga koy delloo loolu noonu. yaa ngi dégg xam nga rek fii nañu waxante dëgg. moom yoonam nekkul si bu ñu ko sànnee bagage mu too xool xam ne bagage la mu puus mais lan lay jël bagage di ko delloowaat. ko yow loo nga jàpp moo daan Ama Baldé non nekkul ko caution daan sax du loolu du loolu làmb làmb la mais jour boobu noonu ñu si dugg ñoo bari ñu seen yoon nekkul ñu si dugg gis nga billaay wallaay laa la wax gis nga làmb ji si boppam làmb ji si boppam luñ ci war a xoolaat moo bari ci war a moo xoolaat moo bari te fii nii booy daan di daan gars yi dañuy namm sa defet dañuy bëgg nga daanu waa loolu yow koo xam ne xam nga lu mu daj ci làmb ji ak coono yu mu si des papaam ñaanal ko yaayam ñaanal ko ah seen waa ko ñu yaakaar ko xam nga mu dem ñëw yow muy tuut yow nga jógee sa kër ñëw bëgguñu daan ko. am na yoo xam yàlla du ko seetaan sax. mais mais xam xam xam tamit yi defoon na moo tax mhm. mu jekkoo ba dafa daw génn ar xool na kii dafa war a dem mais Pikine moom saa bu gars yi bu leen daana rek ñu ne non dañu xeex wala nag mais làmb mais tey nga dëcc ba doo rek làmb noonu la jamono la. man leen laa lay wax. waaw comme ça Ama Baldé daanu na. waaw Eumeu Sène daanu na. waaw Pikine ku fay bëre yàlla nga daanu. waaw mais lan moo tax nga ñaan waa Pikine. ah loolu laay ñaanal defet bi ndax defet foofu defet moo fa moo leen fa jik instant victoire bu fa am du leen jik ndax jàmm du fa am yaa ngi dégg. Ah. mais pour ñu am jàmm ko ñoom ñëpp nañ daanu. na tenoor yëpp daanu Pikine. billaay walaay. ah waaw <laughs> ah, bu ñaan taalaay laa la wax. musuma faral Modou Lo. Modou ko musuma faral. mais combat bi yàlla na yàlla am ndam yàlla na dóor mbër mu daanu. du ma tudd sa mbër bu muy bëree la. waaw ñëpp xam nañu ne Modou Lo na ko dóor mu daanu. yàlla na ko dóor mu daanu. non yow daal yaa du sotal sax. c'est que a ngi nii du sama turandoo du sama dara. te ama seen barki yàlla man. mënuma ko sax xool bu ñu tasee entraînement daf may téye bàyyi entraînement di ma conseiller ci làmb di ànd ak man entraînement. Ah. di ma waxal lu xam nga di ma conseiller di ma wax moom lu muy doxalee. loolu yëpp loolu di ko ci sant bu baax mbër nit ku baax la. Eumeu seen nit ku baax la. waaw léegi comme comme comme li wax noonu xam naa ne émission bu ko toppee lu neex du doy quoi mais. non non garaaw lu neex du doy quoi parce que xam naa ne Ama moom vraiment. daan daan bi ñu daan turandoom vraiment vraiment métti na ko quoi métti na la trop trop léegi man dama ñëw Ama làmb ji kan moo ci dàq bëri. làmb yi kan moo ci dàq bëri. Hmm. non c'est xam nga qualité bëre yi dafa bokkul. kii mën na ñëw mu ne paqueté. kii mën a ñëw xam nga mbot kii mën a ñëw palaake. waaw te ku nekk li ngay def mën a bëre la am na mbër yoo xam ne complet nañ yëpp mën nañ ko. mooy complet. waaw mbër yoo xam ne mën yëpp li ngay wax ñooju kal mbot xatar bi yëpp. non loolu baal ma jox ko génn si arène bi jox ko ordinateur. ordinateur mu dàq waaw kooku xam nga toog nañ waxtaan ci làmb mu seetaan may contact ñu toog wax mu wax. laa xam ne kii moo dàq bëri ci làmb ji. waaw. non sa idoor moom yaakaar naa si làmb kenn doon kenn ñëpp xam nañ kan la. waaw Ama moom comme li ma lay wax rek loolu moom yàlla da def ba pare mënatuñ ko dindi. waaw. loolu mënatuñ ko dindi. Hmm. moom di ko ñaanal jàmm rek. di ko wax giri am na problème giri. Gris Bordeaux moo am problème nag. waaw yow ñaan nga yàlla si jour boobu muy bëri nga am si bëri si le 7 janvier. non loolu loolu mën na nekk mën na bañ a nekk tamit. waaw bu amee baax na bu amul baax na mais dañuy jàpp ne xam nga. lu munti am rek yàlla la fii moom àdduna la sa waay chaque jour nga gis nit di ko yéene safaan te chaque jour moom mu ngi avancé te chaque jour nga yéene nit ki lu bon hmm. chaque jour doo ko fekk si lu bon hmm. kon fii yàlla rek moo ci nekk hmm. fii ñun ñëpp yàllaa ñu fi wàccee ku nekk daa trace sa yoon yoon bii ngay jaar ki yoon bi ngay jaar kon man aw ma droit man ma bàyyi sama yoon gis nit nekk si yoonam ma koy jéem ma soxare wala ma koy jéem a xeex loolu yàlla sax bugg ko yàlla gis nga bu naroon bu narul woon jàppale kooku sax xeex bi nga koy xeex day tax mu jàppale ko yaa ngi dégg waaw loolu di ko laase jeunes yi bu baax a baax a baax nañ nañ gën a fonkonté gëna jappanté jàppante ndax fii nii fonk sa morom rek mo la mëna avancer lo ndax tay ji man mëna nga yow mën di ànd ah man fonk ma la nga dem ba réussir yow tay ji fofu do mo mëna talal loxo tay ji ma fonk la nga dem ba réussir war man ma réussir kenn dina talal sa morom loxo wa kon looloy aduna quoi nañuy jappalante bu baakha ba wa Ama lan lan nga mës a dund loo jeex loolu lu ma mës a dund ci làmb la mooy ba may bëreeg T-Max sama mag dafa décédé Laye Diop di ko yàlla ñaanal yàlla xaare ko àjjana loolu moo ma gën a métti ci CNG ñu ne ma da ngay bëre par force loolu moom ma gën a métti si jour bi si jour bi la sama mag gaañu jour bi ñu ne ma da ngay par force loolu moo ma gën a metti sama carrière. te doo ëpp billaay wallaay ñoo moom a gën a metti waaw Pape duur tamit man mere naa ko. ba Malick Ndour ministre de la jeunesse ñun ñëpp nga fi nekkal ku nekk Mbëbës ak ku nekk Kër Massar ku nekk dakaar ñëpp nga fi nekkal sama combat jàppale nga sama adversaire woo naa la ba sonn gisuma la woo naa la ba sonn gisuma la te ñun ñëpp nga fi nekkal. waaw mooy mooy ministre jeunesse bi. voilà munoo jàppale Moodu ba pare bàyyi dem de. voilà ñun ñëpp nga fi nekkal moo tax ma woo la bu nekkoon moom nga fi nekkal. Hmm. wala ñoom seen secteur duma la woo. damaa xam ne ñun ñëpp yaa ñu yilif ñu jeunesse yëpp kon su ma la woowee danga ma war a wuy danga ma war a tontu waaw mais ba léegi dégguma la gisuma la te di yaa ngi jàppale nit ñi waaw. lan nga dund sa carrière mu neex la. mu neex ma. <laughs> waaw saa yi boo ko xalaatee ñëw da ngay doo mooy bég waaw waaw loolu des fois day am. des fois lu may gën a bégloo loo man hmm. mooy tey jii may bëre. Hmm. ma dégg ñu ne yàlla nañ ko daan. yow loolu moo loolu moo may neex man. loolu moo may neex ci làmb. ma dégg ñu ne yàlla nañ ko daan. Hmm. yaa ngi dégg après su ma daanee man affaire boobu rek moo may neex quoi man boobaa soxla ma xaay soxla ma dara man loolu rek na ma neex. waaw nga xam ne noonu kii ñi yéene woon nañ ma ma daanu tey daan naa. voilà loolu yaa ngi xalaat nag xoolal ñi bu ma sëggee bu ma xoolee day sëgg bëgg naa si waaw ma leen dama leen romb di fecc. Hmm. waaw man man ma wax dëgg yàlla moom. Hmm. ah danga damay bëgg gaay di ma yéene sax loo xam ne. Hmm. xol safaan la ko quoi. da saay bu ñu saay bu ma ko gisee rek. yàlla day def daf may suturaal ci loolu. waaw moo tax damay bëgg gars yi loolu dama bëgg gars yi ñëw gars yi day leen may wax yàlla nga daanoo yooyu dama koy bëgg. waaw. te ñu ñëw benn message boo xam ne gis nañ suñ seen mbokku mbër mhm. yu bëri dëgg naa jaar nañ si gaal ñi des nañ si ñi dem nañ looy lancer message boobu. waaw loolu moom xam nga ñu ngi koy gis ñu ñëpp ñu ngi koy gis ñu ngi siy teg suñu bët mais tey jii lu leen wax rek mooy àdduna dara jarul yàqamti yaa ngi dégg tey nekkoo mool musoo dem xëcc mbaal musoo dugg géej boo duggee géej ci tefes bi nga yem sangu tey jii nga jël risque dugg ci gaal yi léegi nga dugg ci gaal yi nga dem ba ci biir gaal bi am problème léegi fan nga jëm te yow li nga bëggoon mooy teral sa yaay teral sa papa déjà yow da nga ko teel a ñoom yaakaar bu ñu amoon sa yàq nga ko kon di wax jeunes yi ngir yàlla ak yonent bi na ñuy teey ay xale yu ndaw lañ demaguñ fenn lu ñu war a am dañ koy am lu ñu waruta am duñ ko am fii yàlla bind na bu yàgg ku nekk li nga war a am yàlla bind na ko bu yàgg kon lu si des mooy ñun ay jeunes lañ nañ jéem a fexe lu baax def lu baax jéem a gëm suñu bopp lu ñuy def mu doon ci yoon boo xam ne yoon bu set la ndax boo eggee nga am ci li nga bëgg. waaw ndax tey ji bëri na ñoo xam ne ñu ngi dugg si gaal yi bu ñu demee pour ñu am fu ñu dëkk sax problème la ndax imagine nga dugg si gaal yi nga dem xamoo fa kenn nan ngay def da ngay nekk si mbedd bi da ngay bëgg a ñibbisiwaat doo ñibbisi te yow teral sa waajur teral say famille loolu moo la tax a jóg te ñu ñëpp loolu lañ bëgg ñun bu ñu neexoon tey am nañ doole joo xam ne mën nañ ci dem ci gaali mais duñ ko def mais dañuy toog heure bu jotee rek yàlla def ko rek dinañ jël si yoonu normal jaar si yàlla defal ñu jàmm. waaw. kon léegi Ama kon ni nga ko déggee mais xam nga tey réew mi fu mu toll. Mhm. yow peut mooy yow da ngay des mais keneen choix am li muy dund est que yow yaa ngi koy dund gisul dara lu dem. Mhm. kooku nag il ñu nangul ko tamit moom li mu gis mooy dem dañ koy nangul demam. Mhm. mais tey réew mi bu neexoon yaakaar naa jeunes duñ jaal fii si gaal ne ñu ngi dem. gëm loolu. moom neexul. Hmm. ku la neex na moom. Hmm. billaay walaay da lay nax waaw fii ku la ne ne réew mi neexul neex na billaay da lay nax nga jeunes yooyu may ñuy wax noonu tey jii jeunes yooyu ku ci dugg ci gaal gi lu bon bon yaa ngi benn quatre cent mille yaa dégg te yaa dugg ci loo xam ne risque la mun nga cee dee mun nga cee dund yow quatre cent mille yooyu cinq cent mille yooyu nga yor tey am na si ko doon investir fii mu ndaw ak mu mag mën nga ci ganewaat cinq cent mille si boo ko gëmee. yow tey boo amoon cinq cent mille yow yow tey soit ban ngay jëlee bi looy def da ngay dugg gaal ga wala am feneen foo ko dugal. non man moom wax dëgg yàlla moom gaal yi moom xalaatuma ci dugg moom wax dëgg yàlla. xaar yi moom xalaatuma cee dugg sax. mille mun nga ci investir. mun nga ah da xool rek da xool toog yedd sa bopp. Ah, ma waroon si génn ma comme la doon yow si boppam yow foofu ban projet nga koy dugal pour mu mujj projet xam nga doo tëb rek ne si lii laa koy dugal xam nga tey doo mënoo tëb nii nii nii ne lii laa koy dugal. da ngay toog xalaat sa xel. ne war naa ko mën a dugal ci lii. Hmm. waaw am na ñoo xam ne dañuy tëj seen magasin. Hmm. am ñoo xam ne dañuy jël seen oto jaay ko. Hmm. am ñoo xam ne dañuy jël seen moto jaay ko am ñoo xam dañuy jël seen kër jaay ko. jël yoon bi dem ba ci yoon bi dee. loolu lan moo ko fi jar. nañ def nànk rek. Mm. waaw dara jarul yàqamti. Mm. waaw. gars yi kon yéen ngeen ko déggandoo tey Ama ne seen woon mooy li may wax gars yi fekk waa dem nañ ko wax nee naa mbër yi dàq bëri fecc si làmb ji si la bokk. ñu bàyyi la yow nga nga tàggatoo. ak bëre. sa gars yi ak bëre. waaw waaw. loolu di sant gars yi rek. comme ni nga gisee nii mm. waaw. xam nga tey ñii làmb dafa doon loo xam ne bu doon ñun kese. bàyyi nañ làmb nekk ci leneen. mais tey yàlla day boole ay nit yoo xam ne chaque jour ñoom tamit dañuy dëkkul leen dégg lu leen naqari yow doo mën a reculer benn yoon. waaw di leen sant ñoom gars yi Boubacar nii ñoom laay ñoom njàpp ñoom bépp waaw di leen sant gars yi bu baax a baax ñoom Fallou Fallou Thiaw <laughs> Papa Thiaw maa ngi koy sant mère Marie Zomé maa ngi koy sant yaa ngi dégg di sant waa koñ bi ñoom Baara. grand njaay yi ñoom njaase ñoom dañ ciy jàpp bu baax surtout maa na Ndaw Thierno Ndaw jéggi tali kooku aw ma fayam waaw aw ma fayam ñu ciy jàpp bu baax a baax sax waaw di woo si jàpp ba Kébé maire di seer sa di ko wax kontaan nañ bu baax a baax waaw sama mu sëf jàpp na ci bu baax a baax taan xaripu yi di sant sama papa tamit sama papa ñëpp jàpp na ci bu baax a baax sama tante faatu moom ñoom ñëpp jàpp nañ ci sama mag yi ñoom boobu ñoom Tafa ñoom xam nga ñoom Omar ñoom ñëpp. xam ñoom mama Diop Idi ñoom ñëpp seetaanuñ ma benn yoon daal waaw di ñaan yàlla rek comme lu ñu mébét daal yàlla ñu yàlla may jàmm lu ñu am lu ñu bëgg yëpp ñu am ko. waaw lu ñu bëgg yëpp ñu am ko waaw. mu ngi dànk fanaanam nag trois séances la ñu internet instant yi trois séances. par jour par jour di waajal gars yi nag yow ñu xam ne am nañ combat de nañ teel a waajal dañ leen may dara dañuy ñëw seen kaw de ponkal yëpp dañuy ñëw seen kaw yóbboo ñu xam ko. kon gars yi yéen a ngi ama nañ seet si woon tey Malika fii am kontaan si ci recevoir waxtaan bi waxtaan làmb nii la rek wax ñu ñëpp ay frère nan parce que nit ku nekk boo duggee si làmb am nga am nga mëbëb loo li nga bëgg sa mëbëb yàlla na ko suñu borom sotti quoi di ñuy ñëpp di sant di ñuy ki xam ne mooy Codes bi nekk sama cadre bi Ah, waa gars yi xaar may ma tuuti ma ma saa yi loo wax yow. waaw billaay baat sëñ Mbaam tey nag dañ ñëw seet si woon quoi. doon Nam TV baat sëñ Mbaam tey nag da ngeen ñëw xam ni dafa yéeme quoi. dafa amoon ay mbóot. yoo xam ni tey ba léegi foo génn si temps bi nit du ko fàtte. fi mooy Malika montagne Mbobes. suufu montagne. baat sëñ Mbaam laas fa ba laas baa nii koñ ama. baat sëñ Mbaam waaw ñun Mbobes lañ dëkk. ñun tàbbatuñ si dara baat sëñ Mbaam Mbaake. ndax fii nii mboos bi boo ko déggee mooy loolu noonu gars dañ fiy dóor waar lépp ah, lépp fi am nag lépp moo fi am lépp fi am fi mooy for lekk for jaay for yóbbu kër ga <laughs> bat sëñ maam for suturloo for waaw yaa ma gën a xam ama nag moom <laughs> ah. mi ngi si entraînement yi bat sëñ mbaam mama cang bu ama neen dëgg <laughs> waaw yaa ma a xam kon gars yi yéen a ngi dégg noo gars yi xamuñu ay ay ay ay xaritam donc quoi ñoom la siwaat ñoom la foowoon doo màggandoo lii rek gars nee mom rek nañu topp dégg nga gars ah, Amar Amar rek nañu top ah. waaw waaw di sante pap job pap job sama mak ak jabaram mama tiaroy waaw di len sante waaw. waaw di sante ñepp di sante koti tiaroy geej waaw di len sante ñom ñepp wa Gambia japp nañ ci combat kon gaay yi rang door ko ci muy gaaw. Korea, never drama.